Thank you. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak groupe Futur di leen dalal jàmm seen émission la grande interview ñu jagleen leen ko ci kaw campagne électorale bi ñuy amal Sénégal ci dëgmaluk euh, pala jàngante palak njiitu réew 24 février 2019 ñoo ngi am mbégte mbokk yi ànd tey ak candidat ci juróom yi nga xamante ni ñoo taxaw ngir jot réew mi di Sénégal muy euh, maître Madické Niang moo jiite coalition Madické 2019 président ñu ngi lay ziar rafetlu lu baax teewaay gi. ngi lay nuyu di la ziar waa TFM yëpp. di nuyu sama rakk le président Youssou Ndour te di nuyu waa Sénégal yëpp te di ziar xalifa généraux yëpp bàyyiwuma kenn sëñ Mountakha sëñ Mbaye Sy Mansour ak ñëpp incha allah. jërëjëf ñu ngi ànd waxtaan wi ak Souleymane Niang maa ngi lay ziar Souleymane. maa ngi lay delloo ziar Aj Hassan. jërëjëf Sara Cissé. ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay naka noonu Cheikh Ibrahima Dia TFM. fay la El Hadj nuyu président Madické. ak njiitu observateur Alioune Badara Fall El Hadj maa ngi lay maa ngi lay ziar Aj di nuyu. Euh, ma dikkee di ko di ko ñaanal jàmm ak xewal. amiin Pape Djibril ñu ngi lay nuyu bu baax. di la delloo ziar bu baax El Hadj Assane di nuyu suñu gan gi di nuyu téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel. ba tey ci waxtaan wi Adja Binta Diallo bu RFM rajo Futur Média Adja maa ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Assane di dalal suñu gan gi maître Madické Niang. monsieur le ministre euh, ginnaaw bi ñu delloo gërëm la bu baax ci teewaay gi ndax xam na ni jot bariwul bi ngay siiwal sa programme bi nga xamante ni moom nga fas yéene liggéeyale Sénégal bokk na ci wàllu ceetlu yi nga def mooy yàqu-yàqu yi ci wàllu tolluwaay réew mi ci muy économie di dund askan wi di wàllu politique ak yorin euh, nga ni sax euh, yamoo ca fukk ak juróom-ñeenti mesure am na boo faloo moom ngay njëkk a taxawal ci réew mi d'abord fan nga wéer li nga xamante ni mooy constat yooyu nga def ba gis ne ces 19 mesures yooyu dina doon am pàcc ci Sénégal waaw fan laa ko wéer mooy bala ngay man faj da ngay xam jàngoro ji nan la toll ak lan mooy jàngoro ji seetlu naa ni Sénégal problème bi mu jëkk am mooy problème mu justice kenn gëmatul yoon Sénégal bala noo àtte nit ñi dingat sunu àttee ba pare ñu delluwaat di dingat ba tey kenn gëmatul justice loolu bokk na si li nga xam ni saytu naa ko li ma xoolaat aussi ba gëstu ko mooy jigéen ñi sonn nañ lool te microcrédit fajul seen soxla loolu bokk na si li tax ma wax ni danaa jël mesures yi dix-neuf yi seetlu naa ni aussi ndaw ñi ki am diplôme ak ku amul diplome amuloo liggéey yaa ngi daw di wut liggéey te loolu aussi nekk na lu jafe nangu si réew ma seetlu aussi ni lépp loo xam ni dafa jëm mbirum agriculture te président Macky Sall wax ni doon na ko jëmale kanam ba tey sénégalais yi agriculteurs yi paysans yi gisuñ si seen bopp lu tax gisuñ seen bopp mooy modernisation bi na mu waroon amee déjà amul te su waroon am il faut ay ponk yu wóor mu mën si sukkandiku ma seen njàng mi njàng mi moo gën xajam Sénégal grève yi bëri lool coow li bëri lool si njàng mi mm-hmm. ba pare nit ñi dañoo jàng ba ni ar duñu am liggéey loolu aussi saytu naa ko ba man xalaat lan moo koy faj ma seetaat aussi mbirum santé bi naam CMU am na waaye CMU boobu ni mu amee dafa gën indi jafe-jafe ba nga xam ni CMU pour que mu dox il faut nga seetaat mbirum CMU nan lay amee ak nan ngay fexe góorgóorlu ba faj ba xaalis bu doy am ci CMU bi hmm. mbirum université bi problème ya fa nekk ñàkk fay université yi nga xam ni dañ leen war fay ba xale yi jàngunu ñàkk yéex fay bourse ba grève yi di bëri waaye aussi coono bi nga xam ni ñi bokk ci famille yi gën a néew doole dañ koy jànkoonteel université loolu aussi bokk na si li tax ma bëgg faj lu bëri mm-hmm. mbirum économie bi ma xool ni tey naam ñi ngi wax croissance waaye croissance bi nu am du croissance bi ma bëgg croissance bi ma bëgg mooy croissance boo xam ni day yokk emploi yi croissance boo xam ne day yokk pouvoir d'achat wu sénégalais yi seen poste daf koy yokk croissance boo xam ni day wàññi dund gi croissance boo xam ni dafay feeñ si réew mi tey soo seetee li ëpp solo si réew mi mi ngi nekk si ay loxo ñoo xam ni bitim réew lañ jógee te sunu privé national gi gisuñ ci seen bopp loolu yëpp lu moo jur day jur ni lu doon xéewal kenn si dëkk bi dafay dem bitim réew te su demee bitim réew kenn du ko mën jariñoo lii yëpp moo waral ma ni pour soppi yëf yi il faut nga def fukki mesure ak juróom-ñeent yoo xam ni dana man jëmale kanam Sénégal ba faj coono bi nga xam ne moom la Sénégal jànkonteel coono bi nag fépp la secteur boo laaj rek daa fekk ñoom metti lu rëy am fa mm-hmm. dinañ ci ñëw ci secteur par secteur mais kon ni nga waxee ni dafa mel ni yow jàpp nga ni yaa ngeeg vaccin bi am yaa ngeeg ñàkk am naa ko bu baax mm-hmm. xam nga man yàlla may na ma jaar-jaar boo xam ni su ma nee danaa xam naa état nu moo doxee danaa faj lii dama koy teg ci fànn yu wóor man nekk naa fukki atu ministre man sama jaar-jaar pour nga gis que si benn gouvernement Sénégal xaw ma bitim réew waaye benn gouvernement Sénégal dana jafe yàlla mayoon na ma doon ministre de l'habitat nekkoon naa ministre de l'énergie nekkoon naa ministre des mines ministre de l'industrie ministre de PME ministre de l'artisanat ah. ba pare di soog a ñëw nag di soog a doon di doon ministre de la justice et ministre des affaires étrangères kon réew lépp loo xam dafa jëm département technique bu ministère de souveraineté yi xam naa nan lay doxe mhm. xam naa nan la noo saafara la fa nekk looloo tax sama vaccin bi tudd jàmm ak xéewal ah. vaccin boobu laa bëgg piqûre état bi su ma ko piqûree <coughs> piqûre que ñi nga xam ne ñoo ñooy yor réew mi mm. piqûre que acteur politique yëpp suñ ko defee ñun ñëpp waa Sénégal yëpp piqûre que privé national bi. jigéen ñi ndaw ñi. suñ ko defee lépp jëm kanam. incha allah léegi jàmm xéwal ñu càmbar ko bokk. <laughs> li ma ci bëgg laat Assane mooy am na ay réformes yoo xam ni junj nga ko ci wàllu constitution ak ci wàllu institution ginnaaw euh, wax nga ni euh, nekk njiitu réew yor parti yooyu yëpp dafay jeex est-ce que mën nga gën a leeral askan bi réforme yooyu ci lan lay tënku ak nan lay deme xam nga réforme. bi ma bëgg te mu doon loo xam ni moo baax si Sénégal mooy fexe ba ñetti bànkaasu pouvoir ñi nga xam ni ñoo ñoo yor réew bànkaas bu nekk am cër bu kawe te cëram dara bañ si wàññeeku loolu nag mbirum constitution bi d'accordatuma sax ñu utiliser assemblée nationale di ko fa réviser nanu jàpp ni fu nu bëgg réviser constitution nanu dem si peuple bi naam ay ndawal peuple bi ñu ngi fi waaye nag révision constitutionnelle dafa am solo ba fu nu koy defee nan ko defee par référendum laaj ko peuple bi loolu mooy bu njëkk bi dangay delloo peuple bi euh, moom njukkal moo la jox cër moo la may doole ba ngay doxal au lieu que ngay dem di laaj ay ndawu peuple bi delloo lépp sénégalais yi ñu wax ni ànd nañ si wala àndun si boobu mooy bu njëkk bi ñaareel bi aussi kenn warul nekk président de la république nekk secrétaire général d'un parti dama ñaawlu xëy na amoon na suñu góor nangu naa ko waaye ñaawlu naa trop président de la république nekk sa biir palais di dalal ay parti ñu ko fay tagg di fa ñëw di ko rallier bàyyi feneen ñëw fekk si ka si biir foofu te lépp di mbirum politique te foofu de lu fa war jib mooy loo xam ni njaru askan wi yëpp la mhm. njëriñu réew mi yëpp la moo tax ma ni président de la république dootul nekk secrétaire général d'un parti mhm. loolu day tax euh, benn jaawale du am fu mu yëkkatee baatam ñu xam ni kat kii mooy institution boo xam ni moo tudd président de la république mooy yëkkati baatam loolu aussi pour lu jëm si réew mi bëri na ay réformes yoo xam ne président Macky Sall def na ko te jafe-jafe la indi si réew mi rawatina mbirum parrainage bi rawatina lu jëm si digganteem ak parti politique yi damay bañ ba institutionnaliser dialogue nationale dialogue entre président de la république ak opposition loolu waratul jug Sénégal am na question nationale yoo xam ni mbirum réew mi am solo président ka ko contre ka koy wax ju ñaaw képp acteur nga war na la man woo waxtaan seeg yow. Mm-hmm. bi noo yóbbu armée bi. biñ ko yóbbu di ko yóbbu Mali te sunu doomu sénégalais yi war fa man seen bakkan war fa man des man bi nu ñëwee interview ma dama ni li gënoon rafet moo doon président dafa war woo képp koo xam ni am nga cër si réew mi. Mm-hmm. wax la ni la kat sañ-sañ bii yoon moo ma ko may. waaye nag bëgg naa la ko yëgal laaj sa xalaat moom loolu yomb na day laaj xalaat rek suñu laajee xalaat ba pare mu doxal doxal bi du si ñàkk dara mais day tax réew mi nit ñi tant que ñu ngay wax rek hmm. situation yu metti yi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund ba ñëpp tiit si réew mi képp kuy bailleur de fonds yaa ngi xaw téye sa loxo ba investissement yu bëri duggul Sénégal ba noo wax dañu am jafe-jafe si wàllu koppar koppar bi doyul yooyu yëpp lu ko indi mooy ñàkk wax bi. mais yow président da nga jàpp ni pouvoir yi yamuñu doole ci réew bi maanaam légis législative beeg. xam nga président bi mu nekkee secrétaire général de parti dafay yomb mu contrôler assemblée nationale d'abord si biir partem la koy contrôler moo fay samp député foofu dafay yomb lool président bi nañ ko jox sañ-sañu mu doxal te dara du ko tee doxal nag. waaye nag aussi assemblée na am cëru su bëggul li président di doxale mu man wax ni kat loi nangam nañ ko modifier wala maa ngi def maa ngi def proposition de loi boo xam ni bëgg naa mu dox ki nekk doxe sa yeleef kii am na droit def projet de loi kii am na droit def proposition de loie kii loi mën na ñëw mu ni kat loi bi na d'accord mu si ak lii dama ko bëgg modifier dama koy delloo exécutif bi mu def ko mais assemblée nationale warul nekk warul nekk chambre d'enregistrement koroog bi loi bi di jàll mën naa ko wax fii te kenn du ma weddi loi bi nga xam ne moo modifié le code électoral loi bi nga xam ne moo modifié la constitution bi nga xam ne ñun dugal nañu ay questions préjudicielles yu metti yoo xam ni yu dëggu la nan la mujje dafa mujj koo xam ni ku am cër si nguur gi la moo woote assemblée ku ko weddi nag moo wax turam ni leen kat li ngeen di def yeen jaaduwul fukki nit ak juróom jëm ñaar fukk bëgg leen bloqué di indi blocage nan ko voté léegi nanu arrêté débat yi mhm. loolu tax député yi forcé nu mhm. def benn vote sans mhm. xam nga loolu du yelleefu askan wi loolu du fu député député lu mu doon doon ànd nguur gi naka nguur gi jox cëram su fekkee ni da nga bokk sama majorité bala dara di xew lu may dugal lu nekk dama la see déglu diisoo ak yow. wax la sa xalaat soo demee assemblée nationale daa ko man jëfe ñun suñu jàpp problème bi moom mooy de d'élection député yi. Sénégal ñu bëri dañ ci ah. dañ ci kii est-ce que yow. Mm-hmm. xalaat nga indi ci coppite. loolu nag man dama bëgg def ay circonscription électorale député bi ay scrutin proportionnel ak majorité na fi génn ndax tey suñu defoon loolu mu doon circonscription majorité di doxal loolu tey président Macky Sall mënul doon majoritaire à l'Assemblée nationale. wala suy doon majoritaire. lu tuuti lay doon mais seetal mi ngi am 49 sociétés suffrage yëpp ñu ni woon ñëpp dañu taxaw ci tànk opposition wax ma nag ñi ko fekki. booba opposition bi ñi nga xam ni ñoo nekk su wujje politique bi ñoo ëpp ñoo ko ëppale am nañu lu jege cinquante virgule euh, donc zéro cinq pour cent loolu soo ko defee. kon assemblée dana soppeeku doxalin. Mhm. assemblée nationale man dama bëgg. dama mhm. bëgg supprimer. Mhm. conseil dama bëgg supprimer conseil économique social et environnemental dama bëgg supprimer HCT dama bëgg supprimer commission nationale du dialogue kon assemblée nationale bi nga xam ne moom képp moo fay doon institution. bu ay ndawar réew réew mi di toog hmm. di wax nan ko gise ak nan ko demee jox ko doole boo xam ni dara du yomb assemblée nationale hmm. dara du yomb assemblée nationale hmm. te loolu mooy li nga xam ni moo am solo ma dund naa ko am na ay révision constitutionnelle yoo xam ni doon nan doon nan ma ko porté long ma dem assemblée nationale si jamono président Abdoulaye ma doon ministre de la justice waaye commission technique li nekk laa fa daj ba dama mujj dellu ma ñaan suspension d'audience dellu gis président Ablaye Wade ni que kan man lii wax nan ma que lii wax nan ma que lii jaadu na lii jaaduwul nanu modifier loi bi mu nangu ma modifier que sunu projet de loi dem assemblée nationale député yu vote ko booba Ablaye Babou su ma déggee dana ko dëggal moo doon président groupe parlementaire noonu laa bëgg assemblée nationale doxal hmm. waaye assemblée nationale boo xam lu ñëw nga ni si président le jógee dama ko war wootee président moo fi ëpp doole président moo fi am xam-xam moo dàq Sénégal lu mu fi indi dama koy voté duma ko xool voilà il faut ñu génn sànq yaa ngi wax ci euh, réformes institutionnelles et même constitutionnelles euh, ñi yaa ngi wax ni que euh, l'exécutif dafa am présence au sein même du judiciaire est-ce que parce que la présidence du conseil supérieur de la magistrature est assurée par le président de la République, la vice-présidence par le garde des Sceaux. Est-ce que tu as une réforme par rapport à ça Et puis par rapport aussi à cette assemblée-là, au soir du 24 février, il fait qu'une majorité présidentielle. Est-ce que tu as dissoudre cette assemblée par référendum ou par, par, par quelle voie Lady, l'idiome du Conseil supérieur annoncé jaadowul conseil supérieur président de la république jiite ba pare moo amee sa biir présidence de la république xam nga loolu rek tuuma ak wax ju ak xalaat gu ñaaw man na si am man su ma yàlla mayee ndam lu may jëkk def mooy démissionner conseil supérieur ba la réforme bi di am bàyyi ministre de la justice mu doxal mais doxal gi moo doxal mooy en attendant réforme bi bëgguma tëb rek décréter ay réforme damay waxtaan ak ñëpp ñoo xam ni acteur judiciaire lañu xam nga nag bëgg nañ réforme yu bëri ndax indépendance justice kenn waratu ko nattable Sénégal li xew si ñàng justice ak ñoom ni ñu doxalee si justice boo xam ni kumba am ndey ak kumba amul ndey la loolu il faut nga def réforme bu xóot pour dindi ko fi Sénégalais yi gëm loolu mm-hmm. waaye nag il faut nga waxtaanee ko ak ñëpp déjà damay jël ay ñetti mesures am solo président dootul doon président conseil supérieur de la magistrature ministre de la justice bu noo tegati mënatoo doon koo xam ne da ngay fësal sa par parlon ni dama bokk ci justice damay am naqar ku am respect la si Ismaïla Madior te wax naa ko waaye naqarlu naa muy dem moom si meeting politique dem si bureau politique am wala comité directeur am wala leneen ak leneen su fa paree génne journaliste yi teg micro muy wax si loo xam ni mi ngi jëm si mbir yoo xam ni justice saytoogu ko wala saytu na ko ba pare aussi euh, hmm. nekk de la justice ah non non ah, ah très bien hmm. man bokk man booba PDS laa bokkoon hmm. waaye bokk ma woon comité directeur maa ko bëggoon jege woon naa Ablaye Wade waaye aussi bokk ma woon comité directeur bokk ma woon bureau politique man ko bokk en bi ma nekkee affaires étrangères laa dem nag di soog a nangu ni naa bokk parce que ma demee bitim réew ñi nga xam ne ay militants lañu dañ may bëgg recevoir bëgg ma teeru. Mhm. te su may wax ñoom il faut ma wax su turu secrétaire général. Mhm. mais man ñëpp xam ni ministre de la justice boo xam ni ma suma par parloo ma suma nangu. Mhm. di wax si mbir yi nga xam ni. amoon na jamono jooju. voilà président ñu ñu jàll ci euh, ñëwaat ci li nga xamante ne moom la shérif wax moo nii de da ngeen di nekk euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, nguur ndax sànq yaa ngi wax ne bi yaa ngi signalé ne loolu bokkoon na ci nekk président nekk président de partie yaa ngi naan nekk amoon na ci nguur gi ma nekkoon. loolu dafay nekk lu ñuy métti ndax dañ koy gis dañ koy faral di gis saa ne si politique yi bu ñu nekkee ci nguur bi dañuy gis ne am na loo xam ne sooxe na mais dafay mel ni duñu ñu mën a taxaw wax ko bu nu génnee si kujje gi taxawee neneen kon tey ñun lan moo mën a convaincre sénégalais yi lay seetaan ne yow 19 mesures urgentes yii nga daa xam ne da nga ko saytu ne moom nga bëgg doxal keroog boo nekkee président ndax boo duggee ci système boobu nag di nga mën a affranchir système bi te tegal ko ni mu ko ni mu waree. déjà da war jàpp ni man ministre cotte laa woon dañ ma dénkoon secteur doonu ma woon président de la république ba man taxaw di jël yenn mesures yi la ma doon def si waxtaane ka ba noo changé constitution bi waxtaane naa ko ak na war waaye du man la réew mi wóolu woon ba ni ma doxalal te jamono dafay weesu bu leen fàtte ni jàngat dañ ko war def ci mbir mi nekk man jàngat naa assemblée nationale jafe-jafe yi mu am ak ni que président de la république tege tege loxo ba rôlam di ko jouer kooku njàngat la jàngat naa aussi si président Macky Sall bi ma ñëwee man nekk assemblée nationale xam yàlla dafa ma may ma am jaar-jaar yu bëri nekk si gouvernement nekk président groupe parlementaire nekk député da ngay xam nguur nan lay doxee mosuloo dégg ma jël position bi wax ni président de la république warul doon secrétaire généralu parti dama mujj seen ni Sénégal ànd na fo àgg na foo xam ni par parloo bi day wàññeeku su wàññeekoo rekk ki nekk man gëm sa moroom gëm ni Sénégal mu ngi si yoon su ma demee bay wax ni dialogue dañ koy instituer si biir constitution dialogue entre le président et son opposition mhm. boobu kon seet naa lu bees lu may doxal waaye du weddi sama bopp moo tax ma teel leen wax ni mhm. amoon na si ñun am na si président Macky Sall jàng naa ni baaxul si réew mi moo tax dama koy fas yéene dindi damay fas yéene beneen ponk euh, ci ce projet de société jàmm ak xewal hmm. et toujours dans le cadre répartition pouvoir yi ci institution yi wax nga tamit ci décentralisation bi ngay wax ci gouvernance hmm. am loo ci wax ñaar yoo xam ne dama bëggoon nga leeral ñu ko danga ne da ngay def cinquième phase décentralisation te ñun lu ñu xam ñu ngi ci troisième phase bi. Euh, ba pare nga def ay proposition bokk na ci bu nekkee jàng naa bu baax projet bi nii da ngay euh, supprimer euh, da ngay indiwaat régionalisation. supprimer gouverneurs yi ñu indi ay ministres délégués auprès du premier ministre chargé du développement des régions. lan nga jubli ci loolu ak lan moo indi waxu cinquième phase décentralisation. xam nga président Macky Sall dafa ñëw ni trois phases. troisième phase mal na ni jamono président Ablaye Wade amul lu xew te am na lu xew mooy d'abord euh, moom dafa revaloriser la fonction de l'élu def leen jox cër wutal leen statut loolu mu doon loo xam ni pour man phase boo am importance la yamul foofu phase boobu lay fisel looloo tax ma ni cinquième phase man dama ne ñu ngi si quatrième phase. loolu tax nekkoon si troisième phase yamul foofu. ñu créer bi jamono Ousmane Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla yokk leer. ñu créer benn fonction publique local lu am solo la fonction publique locale boo xam ni liggéeyam mooy mooy mbootaayu ñëpp képp koo xam da dangay liggéey si collectivité local kon loolu laa bañ ñu fàtte ko moo tax ma ni damay tuddewaat li may def. cinquième phase jàpp ni ma président Macky Sall mi ngi si quatrième phase te quatrième phase boobu matul des na lu bëri ma jàngat nag ni troisième phase bi fan la jëmee Sénégal naam créer ay commune am na solo mais communes yi il faut nga jox leen ay doole yoo xam ni daanu man def seen yeleef ba mat sëkk lan moo koy faj conseil départemental ba xam am na solo bi war jur na rôle loolu aussi ma am lu ma si ŋàññi lu bëri ma ni nanu dellu sa région ya suñ delloo sa région ya danoo am entité yoo xam ni dafay gën am doole te day gën si biir région bi jëflante bi dafay gën fés parce que si région sàngam laa bokk si biir région ba am na tey localité boo xam ni mi ngi def lii mi ngi def lii loolu dana nekk loo xam ni dana gën jëmale kanam soo seetee sax aujourd'hui si wàllu réew yi nit ñi weesu nañu si toog di doon benn réew wala ñaari réew léegi réew yëpp danoo dajale seen bopp si ay organisation régionale ak su régionale kon loolu ngay fexe ba dupliquer ko def ko si biir réew mi pour mu mën jëmale kanam ma seet ni aussi président Macky Sall xaalis bu bari la dépensé lépp jëmale ko si ay conseil conseil des ministres décentralisé tucurul dara may tooñ gars yi ni leen million million yëm fa tudd ñi ñaa ngi xool ñi ngi koy seenu ñii découragé nañu ñii seenu nañu ba seen loos di metti mm-hmm. may tooñ te loolu jaruka créer exécutif régional boo xam ne day am doole noo koy créer préfet moo am France man te préfet yi lépp lu gouverneur di def préfet man na ko def da ngay jël si biir gouverneur yooyu am na ñoo xam ne sax mën nañ bañ politiser poste bi ma bëgg ñu créer des ministres régionaux les ministres régionaux ñoom dana ils sont d'abord des ministres délégués auprès du premier ministre premier ministre am na obligation weer wu nekk mu dajale leen ñu toog ki nekk seet saytu sa région lan nga fa soxla sa région yan projet moo fa war am yan projet yenoo doxal fan la toll askan wi lan la ñu bëgg ak wàll yëpp ñu saytu ko xool nan la ñu wër jëmale kanam suñu paree président bi lu mu bon bon si diir bu gàtt mën na doon ñaari weer ba ñetti weer war na dajeeg ñoom ñëw gën fësal conseil boobu boole ak na gouvernement am yëpp ñëpp dajeeg ñoom ñu tontu la noo wax jarul kenn di yanu di dem si ay conseil yoo xam ni mm. wóoru ni dana jur dara donc loolu nag tëbuma rek décréter ko dañ koy étudier bu baax seet nan lañ koy jëfee mais gëm naa ni exécutif régional mooy li nga xam ni mooy jëmale kanam région yi waaye du président tey mu ñëw fanaan fi def politique dajeek ay responsable politique ñu teeru ko ñu tàccu génn ay millions yu dul jeex kooku jëmalewul réew kanam mën nañ xam boo taxawalee sa gouvernement ñaata ministre ñoo ciy nekk su ma gouvernement du weesu vingt cinq ministres mhm. du ko weesu nee naa woon vingt cinq à trente mais léegi jël naa responsabilité nag dama bëgg wax sénégalais yi mhm. ni man valeur yin ma yare li si ëpp mooy du ma diggee lu ma dul def mhm. soo diggee dara ni danaa ka def yàlla rek ka man waaye nag na fekk nga fas yéene ko def du ma mukk mukk mukk diggee lu ma dul def kooku dama bëgg sénégalais yi xam ka du ma dem ni vingt cinq ministres mujjee quarante ministres soo si yekkee ministres yi yeneen ministre conseil mu doon quatre vingt ministres loolu dafa jaaduwul si réew jaaduwul si réew moo tax gouvernement bi may def gouvernement wu vingt-cinq ministres lay doon du ko weesu très bien président euh, man li ma bëgg a laaj mooy wax na ko léegi moom moo joxe transition bi sax muy ci wàllu jikko yi c'est vrai que dafa am benn borom xam-xam buy wax ne Afrique dañuy nax nañu l'avenir c'est vous mu ne waaye dañ leen di nax parce que préalable yi defu leen ko muy wàllu jikko moralisation de la vie publique ndaxte gis nañ ne classe politique bi fi nekk depuis cinquante neuf ans daanaka ñoom ñoo fi nekk amul renouvellement bu am solo lool. te ñu gis dafa mel ni les mêmes pratiques ñoom ñooy perpétuer wu jamono bu nekk résilience boobu pour yow lan moo ko waral ak ndax tey jii programme économique yi lu ñu baax baax baax su fekkee ne ay jikko yu rafet amul. kenn ku ci nekk ndax compétence bi am na fi waaye problème bi mooy intégrité loolu ci sa wàllu programme nan ngay def ba kenn dootu sàcc xaalis Sénégal nan ngay def ba kilifa yi dootuñu wax lu dul dëgg nan ngay def ba ndaw ñi mën a exercer la plénitude de leur citoyenneté. Euh, loolu déjà da ngay teg Sénégalais yi si ay jikko yu rafet mooy nit ñi lu nu wax nguur moom que doon nekk sa nguur ga ak état si boppam warul wax lu mu dul def bés bi na ngeen dégg. syndicaliste di wax ni nanu respecté accord yi nu signé loolu dafa doy waar si nguur nit sax warul jël engagement signé ba pare doo ko respecté loolu si la bokk waaye nit ñi aussi il faut ñu demee jom ak ngor jom ak ngor mooy wane réew dënk na la si biir askan wi gënuloo fi sénégalais yi di doon quinze millions ñu tànn la am lu mu la dénk war nga góor góorlu jël lépp delloo ko Sénégalais yi yor yor mu rafet loolu nag lépp loo xam ne day xajamal yor boobu d'accord man dama bëgg corps de contrôle yi ma jox leen doole goo xam ni dana teel ñu xam yàq-yàq ni am na wala déet doo bàyyi doo bàyyi ba yàq gi sori nga koy ŋàññi mhm. léegi inspection yee am si biir corps de contrôle si biir ministère yi ak si biir euh, euh, société nationale yi inspection yooyu dépendre tul si ministre ba xam nga dépendre tul ci kan lay dépendre si inspection générale d'État ñooñu aussi am seen autonomie lu xew lu nekk daan ko yëgal seen président daan ko jox rapport mais am nañu sañ-sañu saisir procureur de la république suñu saisiree procureur de la république kooku dana mën xool ba xam liñ koy indi ni infraction la jalgati yoon la ba xam dana mën faj damay jël corps yëpp ñi nga xam ni dañoo intervenir ñëpp si li jëm xeex guerre xeex corruption xeex yu bëri ma boole leen si benn institution boo xam ni moom euh, moo leen moom moo leen di saytu hmm. ba nga xam ni dana am harmonie si seen doxalin hmm. te nag amul képp amul benn institution boo xam ni te li ko tax jug mooy xeex guerre te doo am sañ-sañu saisir procureur de la république kenn dootul wax nii dama jël dossier dama si dëgg loolu waratul am si réew moo xam ni da nga war jëmale réew mi kanam looloo tax ma bëgg jël réforme yooyu mhm. def ko si Sénégalais yi gën gëm seen bopp si wàllu justice am na réforme bu am solo boo xam ni baax na ma wax leen ko parce que man rek maa ko fi jëkk wax mooy conseil constitutionnel dootuma nommé su ma doonee président mhm. damay demander conseil constitutionnel bi leen yéen ay sénégalais ngeen ay patriotes dama leen di ñaan ngeen démissionné seen mandat su jeexul ñaan naa leen que nguur gi dàmp leen. léegi nag ma taxawal conseil constitutionnel boo xam ne membre yi sont élus suñu bañee nag d'abord suñu bañee am na ci droit defe naa ni Sénégal président de la République ku mu woo ñaan la mhm. vraiment suñu bañee yaakaaru mu si réew mi ñu mun na am blocage jafe-jafe blocage su amee nag ñu bàyyi leen parce que man duma def loo xam ne yoon amul dañu am mandat mhm. waaye nag ñu engagé suñu réforme ba mandat ba jot mais nag am na ay pexe yu ñu am si yoon su fekkee ni peuple bi moo leen élire ñu def réforme constitution boo xam ne dafa ñëw mettre fin à la mission du conseil conseil xam na noo ko defee ah xam nga daloon na Abdou Diouf Abdou Diouf ba mu fi bëggee jëlee yenn si magistrat yi dafa jël lépp def réforme judiciaire dajale conseil d'état dajale cour suprême dajale beneen ñett la noonu yëpp mu jël lépp bànqaas yëpp jox ko cour de cassation mm. cour de cassation ba mu ko defee ñooñu seen liggéey jeex ñëpp xam ni président am na ay moyen yu mu man def conseil constitutionnel dañ leen di élire mm-hmm. benn corps électoral la noo def kooku dinaa si waxtaan ak acteur politique yi ba nu d'accord ku bëgg ku nekk da ngay wax ni dama bëgg jiite conseil constitutionnel su leen éliree ba pare nag ñoom seen biir ñu daje élire seen président suñ ko defee coow li bëri ak ñaawteef yi noo wax si conseil constitutionnel dootul am loolu lu am solo la. te dana mën jëmale kanam. réew mi waaw muy lu am solo ginnaaw bi ñu ko nuyee moom euh, président nga nekk yow acteur de la justice wax nga conseil constitutionnel. mais boo xoolee organisation judiciaire bañ nañ ko sax duñ ci boole conseil constitutionnel bu leen déggee rek élection la mais am na yeneen muy cour yi ak tribunaux yi magistrats yi ñoom danoo bëgg moom seen bopp. yow wax nga fi ñaari mbir ne doo présider conseil supérieur de la magistrature ministre de la justice aussi day tëddee njaaxaanaay est-ce que loolu rek doy na ngir justice mën a moom boppam. Euh, loolu doyul moo tax damay def réforme bu am solo damay démo damay gën démocratiser conseil euh, euh conseil supérieur de la magistrature gannaaw ñi nga xam ne ñoo jiite les chef de cour jiite. yenn juridiction yu mag yi di fa teew damay fexe ba képp koo xam ne da fay teew élection moo la fay yóbbu magistrat yi ñoo lay tànnal seen bopp loolu réforme bi ma bëgg def yëpp dafa bëri foofu mais du ma tëb décréter que ni dama koy defee nii il faut ma waxtaan seeg acteurs judiciaires yi parce que hmm. nag aussi bëgg naa indépendance bu am solo am benn juge dootu dootuloo xalaat ni am na lu la ëmbal si tuut as si sànqal nguur gi ëmbal na la ko ba ëllëg ngay def lu la bëgg wax naa Ismaïla Madior waxoon ko sama dooma day Sidiki Kaba ni que li ngeen yokkal magistrat yi ñu waroon dem retraite demanu retraite ngeen yokkal leen ñu toog yokkal leen ay moyen loolu day tax sénégalais yi ak acteurs judiciaires yu bëri gëm ni ñii kat ëllëg duñu def lu dul li nguur gi bëgg gis nga Cour suprême que que diriger lu mu def lu ne gars yi fàttali moom waroon na dem retraite demul retraite dañ ko fi dañ ko fi samp yooyu nag moo war jub mhm. si magistrature ba lépp lu xajam dootul am si magistrature ah. par rapport a à justement à ces réformes am na créé cette juridiction de d'exception bi nga xam ne soulevé na fi polémique par rapport à la au de de Macky Sall ñu ne c'est une épée de Damoclès pour s'attaquer à des adversaires politiques est-ce que yow boo ñëwee danga nga fiy jëlee CREI yi wala da nga koy réformer waat. Euh, ñaari opinion la am yoo xam ni tax na il faut ma waxtaan seeg acteurs judiciaires yi xam nga Sénégal soo tëmee nii dama fee dindi CREI yi rek loolu taxoon Ablaye Wade tëbul woon dindi CREI bàyyi ka fi ni ko kenn du ko jëfe tey mu indi njaaxum yu mu fi indi mais soo tëbee ni dama koy dindi lenn benn man am ñaari position moom moo am tey si sama partie ak samay allier yi te ma bëgg ko régler ak acteur judiciaires yi am na ñoo xam dañu wax ni jëlal CREI yi nga réformer ko mu nekk aux normes internationales c'est-à-dire lépp loo xam ni engagement Sénégal la si doxaluñ justice ñu fexe ba jëfe engagement boobu si réforme CREI ba CREI yi dootuloo tëb rek ni nit ki kat ah soxna si sa lunette yi kat lu cher la te yow yaa yor am nga loo yoroon si nguur tey il faut nga wax ma fan nga jële li nga ko jëndee xam nga dañu renverser la preuve loolu la war dindi dañu war fexe appel am créé loolu mooy ñuy wax standard internationaux si wàllu justice am na ñoo xam ni te ñu bëri gëm na loolu te man bokk naa si ñi nga xam ni gëm naa ni loolu mën na nekk mooy tey enrichissement illicite kenn du ko bàyyi mënul ñàkk si réew kenn mënul yor di doxal nu yeewu démb amuloo dara oto tëna la kër tëna la nga tegle rangale ay kër rangale ay oto kooku il foog ñu laaj la foo ko jëlee waaye nag il foog ñu wane fa nga ko jëlee lewul hmm. kooku mën nañ ko doxal nan lañ koy doxalee te enrichissement illicite dafa war doon délit boo xam ni juge yi nga xam ni ñooy àtte délit yëpp war nañ ko mën su suñu defee loolu Euh, benn jafe-jafe du am foo toll ñu ngi doxal justice boobu mais juridiction d'exception moo baaxul juridiction d'exception ah, da indi ay jafe-jafe toujours maître dafa am loo xamante ne seetlu nañ ko tamit ci nguuru Ablaye Wade ñu nemmeewaat ko si nguuru euh, Macky Sall mooy peut-être immixtion ah bi nga xamante ne famille bi dina ko am ci état ñu bëggoon xam yow kero buñ la fale ndax euh, mën nga promettre sénégalais yi ne immixtion famille wala mbokku taalibe wala lu mu ci mën a doon rek du am ci ci biir mhm. état. kooku moom wax dëgg yàlla mën nga ko comprendre. Mhm. te su ma ko waxee sénégalais yi daan ko si li ma gën naqarul la bokk. parce que réew mi wóolu la doyloo la looy def da ngay jël bàyyi say famille say xarit ak say waasoo ki nekk ni moom moom cër ga di xëccoo loolu dafa rafetul si réew mi mm. jox naa leen fii sama engagement ni kenn ku ma jege te nga bokk ak man doo dugal sa loxo si réew mi ñoom lan la ñu am sañ-sañ si man mooy xéewal gi ma yàlla may xéewal googu ma bokk ak ñoom kooku ku ma bokkal di xarit di am di jàmm ñëwal xëccoog man loolu am nga si sañ-sañ waaye nag nanu bàyyi réew mi ba nga xam ni kenn du ni may diw may doomu diw maay xaritu diw ngay doxal réew mi si fànn yu mel noonu mais nekkoon nga ci ci ci nguuru Abdoulaye Wade waaw te bu ñu bëggee imposer son fils on t'a jamais entendu euh, là-dessus xam nga euh, te boo waxee ne loolu daf ko mos a naqarlu te mosoo ko extérioriser waaw mais xam nga aussi sénégalais xam nga aussi am na loo xam ni kenn du ànd ak nit di dem di ko jébbaane si dëkk bi wala di am yenn taxawaay yi mm-hmm. man la waroon si taxawaay si doxalinu état wax naa ko mm-hmm. wax naa ko jamono jooju mais mbir mi sax soo gisee tey la gën a garaaw lu Sénégal yi doon ŋàññi rekk am na benn sénégalais bu ni ma benn nit lañ doon xeex mooy moo doon Karim tey nag yamul famille la soo yaakaar sax ni clan la wala tribu la mm-hmm. kon looloo tax ma bëgg gën doxal yëf yi bu njëkk sax amoon naa sañ-sañu ni su rafetee doxalin ba su rafetee ki nekk ngay sénégalais am nga droit am cër waaye nag su mujjee ba nu dem nit man taxaw di ministre de la république di wax maa ngi gërëm diw ndax diw moom moo tax ma doon ministre de la république. Mm-hmm. loolu xajamal na. waaye maître xam lan moo ñu xëj na bu ngeen ki parce que waxtu wi jeex na daanaka. <laughs> waaw waaw parce que bu leen fàtte benn waxtu la ñu ñëw rek encore euh, te xam naa loolu sax qualité la xëj na ci maître mooy li mu wax kenn du ànd ak ni di ko jeebaane bu dee tamit da nekk ci niñ la gisee nii masla bañ a def ñaaw laa mi soo ndax loolu nga bëgg def di nga ko mën a def tamit. non non xam nga man nag aussi nit ñi dañ ma xamul lu tax nu ñàkk ma xam ku bëgg jàmm laa bañ naa ba sama projet jàmm xéewal waaye nag ku am fulla laa assemblée nationale gis nañ sama taxawaay xam nga sëñ Abdou Khadre lu mu wax yàlla nañu ko yàlla fayal nee na fulla gàññaa euh, la doo doo ko yor rek mm-hmm. foo toll di ko wane mm-hmm. da koy denc ba waxtu wa jot nga jëfe ko ku wér di laaj ñu ma liggéeyal man noonu lay doxalee te ah. ministère bu ma jaar mosuma fa jël sama mbokk mosuma fa jël samay xarit am naa sax ay problème de famille yu am importance parce que simplement dañu wax ni joxuma leen cër si sama aaye man leen mais man li ma am te moomal ko sama bopp te mooy xéewal gi ma yàlla defal kooku mën naa ko bokk ak mais du ma nangu kenn koo xam ni da bokk si man ñëw di jël ay marché ñëw di am taxawaay fu ma dem sénégalais yi ma fa fekk wóolu leen ñu man liggéey ba ku ma woo si ministère yi ma jaar te bëri na fu ma jaar dama lay wax ni la ñaari exigence laa am nga xam li ngay def ba pare nga loyal su dul loolu dara du man dem mais nag il faut ngeen comprendre réew dafay dox la valable loon démb si jamono Abdoulaye Wade tey biñ ko dundee si président Macky sàll dund ko jamono jooju tey danoo wax mënatul nekk mënatul nekk réew nag du yëkkati tënn fu ñaaral dooree moo yor réew man nga am jàmm am fulla man doxal réew te man ku ma gis xam ni ministère bu ma nekk doxal naa ko mhm. kenn mësu ko fa dégg coow kenn mësu fa dégg sama benn agent gis nga pour wane sama fulla tey bi nga xamee nekk naa ministre des affaires étrangères toog gis sama commissaire au pèlerinage toll toog sa màkk di critiquer di wax ni ministère ma mayul jàmm ñoo may imposer ay nit ñoo may def nangam. te mu am droit ñëw ba si man. wax ma ko. xoola ñibbi seegul sax. laa dem yóbbu décret président Wade ni ko kii day dem ma wala ma dem. am na directeur yoo xam ni samay xarit la nu woon doxalinu lu nu rafet du leen tudd fii dama dem ni président Wade kii day dem rek wala ma dem ndax man booba dootuma am autorité. dootuma am cër mi ba réew mi wax mooy ma jiite ministère ñëpp tu war topp sama gannaaw war na nañu man bañ ànd si doxalin bi am nga réunion si biir ministère. Mhm. war nga mën ñëw benn ministère bi nott ni ko nangam ak nangam waaye génn di ko yëkkati ba ñëpp gis ko. Mhm. ko jaaduwul fenn yoon. loolu mooy taxawaayu homme d'état jërëjëf président Souleymane ci wàllu. Euh, benn question rek ci wàllu diine bi ak tariixa yi. bu ñu la falee président lan mooy doon sa taxawaay. ndax di nga indépendant ak tarixe yi ak pouvoir religieux bi euh, ginnaaw ñëpp gis nañ sa taxawaay sa fi nga bokk tamit mhm. am fa taxawaay bu kawe euh, nit ñi respecté la fa na ngay indépendant sa président de la république par rapport à ce pouvoir la li may tudd mu doon sama gëm-gëm sama mbiru bopp la kooku moom kenn mënu ko sot doon président du ma tax ma bëgg ziyaari Touba ma dem ziyaari ma bëgg ziyaari Tiwaawan ma def fa ma dem julli ji àjjuma ma dem julli du ma yàq julli ga danaa ànd ak ñaar ñetti nit dem julli ji àjjuma kooku lu may dund la waaye nag nan cër ba ma war am si doxal réew mi ba ñëpp gis seen bopp toog dara masu ko xaj mm-hmm. même kilifa yi dan lay ñaax si loolu gis nga ministre de la justice moo gënoon metti xam ministre de la justice foo toll bëri na ñoo xam ni mm-hmm. xam nga ñetti pression moo am soo nekkee justice mooy pression mbokk yi pression xaalis pression wu pouvoir religieux yi kooku man muccoon naa si amul kenn koo xam ni nga xam ni man bëgg naa dimbalee hmm. mën naa la taxaw waaye nag du man nangu loo xam ni dafay xajamal sama doxalin loolu moo man tax sama jamono pression wu pression bu man doon ma nekk fi ñoo topp président Macky Sall ma nekk ministre de la justice xool dossier ba gisuma loo xam ni war nañ ko topp procureur ni ma bëgguma ko topp ma ne ko doxalal jël naa responsabilité defal yow li nga gëm ñu ngi may dégg de doxal li ngay gëm loolu moo man tax sama jamono ma ñëw sa Seck ñu koy topp ma tombé si si dossier bi du si man lañ ko tàmbali procureur général bi nga xam ni moo yor haute moo yor ot cour ñëw def ma rapport ni ma nangam ak nangam ma ne ko defal li nga gëm mu ne gëm noo li du ma joxe du ma joxe ordre de poursuite ah ah. déedéet mais na teewul wax naa ni ministre de la justice am na sañ-sañ boobu mm-hmm. waaye nag danaa ko encadrer damay def réforme bi may bëgg def ministre de la justice mënatul jël téléphone am rek wax procureur nanu def nangam déedéet na jël responsabilité am bind procureur ni que samay instruction mooy nangam ak nangam procureur yoon may na mu jëfee instruction yooyu parce que yoon la su ko jëfee ba pare nag naka teg foo xam ni ëllëg mbir mi dana leer instruction bu jógee ministre de la justice ba nu war jàpp nit kooku nañ ko yóbbu si cabinet d'instruction bi ma wax juge yi ni leen bala dara di xew na ngeen xool mbir mi ba xam da ngeen ko war inculper wala da ngeen war def refus d'inculper waroon ko inculper xam nga loolu soo ko defee ministre de la justice bala moo joxe ordre dana ko seet ndax dara gënul ñaaw nga ni ko kaay topp diw nga dem am ay juge indépendant ñi ñu xool que ni fii dara nekku si du ma ko topp hmm. loolu ministre ba dafa war démissionner si saa si lépp am na doxalin wu rafet woo xam ni <laughs> suñ ko defee léppay aw si yoon te ñun xam nañu yëf yi dund nañ ko tàmbali nañ si li si li ñu joxoon tàmbali nañ si lu bëri loo xam ni def nañ ko ni mu gën a laab kon tey su ne ëllëg daan ko jëfee wax dëgg yàlla sénégalais yi wax nañu gëm te fas yéene wuñ leen dikk wala wax leen nun du fas def loolu moom bokk na si li may ñaan ku ñaanal ndam dama wax ñaanal ma lu ma dikk sénégalais yi ma def ko pour nga def ko il faut benn économie bu bu wér-gu-yaram gi gën a yokku euh, Sara <laughs> bon. waaw il faut nga ca baxal mais foofu la man balaa euh, santé bi sax si éducation bi laa doon bëgg a ñëw ndax dama gis ci programme bi mu ne dafa fekk bëgg a fexe quarante mille. Euh, étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci supérieur privé bi nga fexe nañu delloo ci amphithéâtre bi or euh, amphithéâtre université Cheikh Anta yaakaar naa ne fees bay débordé moo tax ñu génne woon élèves yooyu bokkoon na ci solution yi ngir orienté leen si supérieur privé bi nga indi ci ay leeral li nga wax si éducation dafa am solo mhm. te jotuñ si wax éducation war nañu saytuwaat éducation bi xool ka nan la war tëdde soo amee tey quatre pour cent de bachelier littéraire 20 pour cent filière scientifique Sénégal ëllëg du atteindre mukk lu mën tax mu bokk si ñi nga xam ni danoo produire danoo defar dara il faut que ñu encadrer filière scientifique yi il faut que ma généraliser bourse bi généraliser aide bi bourse c'est déjà le cas nag wax dëgg yàlla président il y a même un institut euh, aux sciences euh, à Diamniadio yaa y une euh, école pour les formations c'est déjà le cas peut-être da nga koy améliorer. dama mais yow tam loolu lu tuuti la yow tam benn école ak benn institut nga defar ni moo mën jëmale kanam réew mi te fi mu toll filière scientifique yi 20 pour cent la Sénégal tey lan la ñu defar. Mm-hmm. li nu defar bariwul. àgg na am na loo xam ni dama lay jox rek exemple sëñ Assane man vraiment nekkuma fi di wax Macky Sall deful dara du ngeen dégg ma wax ko de waaye li mu def doyul. Mm-hmm. te fa mu ko jëmee dafa des. dama lay jox benn exemple rek Macky Sall dafa ñëw ni damay moderniser agriculture agriculture mooy doon sama priorité nan la yaakaare moderniser agriculture mooy dafay dem jëndi ay tracteur bitim réew lu tax du créer usine de montage de tracteur sénégalais yi am xam-xam bu màcc boo xam ni danoo commencé monte ay tracteur suñu jugee si monter ay tracteur ëllëg ñuy defar tracteur loolu mooy jëmale kanam réew waaye moom deful loolu dafa décréter rek ni damay jënd tracteur moo tax dama lay won ne la wàllu formation lu bëri nag am na mm-hmm. si fii nu tollu mais dafa des lu bëree bëri formation bi warul yem rek si ñi nga xam ne dañu jàng am na fu ñu àgg da ngay fexe formation bi wàcc ba sa sa suuf si wàllu économie képp koo xam ni man dama bëgg Sénégal bi nekk nga am métier. maître élève supérieurs yi ci question élèves supérieurs yi nga bëgg delloo ci amphithéâtre xam nga amphithéâtre yi fees kooku objectif la boo xam ni day am mais damay jëkk régler problème bi nga xam ni dafa am mooy fay jaaduwul école privée yi xam nga moom lépp loo xam ne daf ko jéem saafara dafa indi jàngoro ju gën garaaw mu ngi tax école privée yu bëri tey war na nu mën tëj parce que yoreel nañ leen xaalis fayuñ leen ñu am jafe-jafe fay seen enseignement am jafe-jafe fonctionner moo tax ma ni li ma jëkk wax mooy damay fay li ma yor école privée yi ñu continuer jàng waaye nag ñu tabax ay amphithéâtre yu day seetaat njàng mi réorienter njàng mi loolu mooy man tax ñu dellu si amphithéâtre mais du ma yeewu rek ni leen dellu leen ci amphithéâtre te mm. xajun fa xam nga loolu xel mayewu ko mm-hmm. Mm-hmm. loolu objectif boo xam ni fa séeni naa ko atteindre bala moo yàgg mm-hmm. waaye nag il faut que gannaaw objectif u enseignement public bi dama bëgg enseignement privé bi développé foofu Sénégal nekk na si de déjà benn ëpp am na si doole parce que nit ñaa ngi jóge fi nekk di jàng Sénégal mais na nanu fexe loolu gën am doole njàng mi gën doon njàng mu am solo te nu jëmale ko ci filière scientifique yi ñooñ da nga leen di encadré jox leen moyens yu doy jox leen bourse bu am solo ba xale bu jug ni xale yi léegi di jugee di wax damay jàngi football parce que diw jàng na football am milliard noonu ngay fexe ba képp koo xam ne étudiant la damay damay dem filière scientifique parce que lii ak lii garantir nañ ma emploi fay nañ ma nàngam toppatoo nañ nàngam jox nañ ma néeg Euh, université. Mm-hmm. jox fay na defal na ma nangam si bourse jox na ma moyen yi. Mm-hmm. loolu soo ko defee njàng mi dana soppee. très bien ci question rapide rek s'il vous plaît Adja boo daayal léegi ñu bàyyi euh, euh, ñu jeexal waxtaan mi pour jàng jàng bu normal il faut nga wér. te santé dafa nekk luxe ba léegi ci Sénégal malgré que lañ ci def yëpp dafa cher se soigner au Sénégal est très cher lan ngay prévoir dans ton programme. pour xool pour améliorer les plateaux techniques et tout. et par rapport aussi au coût de la vie nee nga di ko élever di nga ci indi di nga ko relever sensiblement euh, naka ngay nga koy relever sensiblement. xam nga déjà pour mbirum santé li noo jëkk def mooy si mesure d'urgence yi mooy def évaluation couverture maladie universelle lan la faj ak lan moo dese mu faj ka ak ban jafe-jafe la fi indi nga saafara yooyu. fukk évaluation am gannaaw loolu sama engagement mooy la santé partout et pour tous mooy fexe partout ak fu mu mën doon ba village ba gën a ndaw nga fexe mu am dispensaire case de santé wala mu am simplement donc centre de santé mm-hmm. ba pare nga yokk hôpitaux yi kooku nag ay programme yooyu doxal la il faut santé ma jël ay ressources financement yu bëri mën naa ko am déjà bul fàtte ni am naa économie yu bëri yu may réaliser su fekkee ni conseil économique sociale tëj na su fekkee ni HCT tëj na mhm. commission nationale du dialogue tëj na mais bul fàtte ni aussi ñu ngi seenu alal alal joo xam ni petrole bee gaz bi moo koy indi damay jël secteur clé yi nga xam ni moo ñor sénégalais yi ma jël ëpp si alal bi jëmale ko secteur clé yooyu mooy ndaw ñi jigéen ñi santé bi mooy agriculture mooy jëmle gox goxaan yi kanam xam nga dama wax ni. jot na léegi Sénégal ñu xalaat dë dëkk yu sori yi ak commune yu ndaw yi ban jël suñu doole yëpp di ko def ci capital euh, capital régional yi mais ñu dem foofu nga xam ne am na lu nu manqué. damay de at mu nekk selon importance su importance commune bi danaa ko jox cinq cent à milliard cinq de dotation si ay projet yu ma jox ma financier ko projet boobu projet boo gis accès au service sociaux de base la moo mooy première mooy première exigence bi mm-hmm. loolu nag mooy lan courant ndox san faju ba pare nag ñu am programme mu def benn unité de transformation xam nga luy sunu problème dëgg-dëgg ba ba fu nu toll di ŋàññ agriculture bi mooy agriculture dañ ko bëgg def rek bay bay dunde wala bay jaay alors que mbay mii mën nañ si jëfandikoo lu bëri si ay unité de transformation ñoo def si gox-gox yoo xam ni bala ngay jaayee gerte man nga fexe ba am saabu man nga fexe ba am dawlin ba pare am gerte soo ko defee daa mën fexe agriculture bi dana mën développé wu mhm. tey ñu ngi produire lu bëri mais production yooyu gis nga coono bi mu def ñëpp a ŋàññ commercialisation de la l'arachide lu tax ndax simplement lépp dañ ko wékk pour jaay ko bitim réew wala jaay ko usines yi nekk fii usines yi suñ ko jëndul wala jaayuñ ko bitim réew jafe-jafe am fexeel ba loo ko transformer sur place da ngay wut budget boo xam ni dana mën doxal loolu loolu moo tax ma am beneen gis-gis si li noo wax yëpp jëmale ko euh, kanam Sénégal santé moom euh, bokku na euh. sama priorité danaa régler mm-hmm. li nga xam ni moo am jafe-jafe ak les acteurs de la santé ñu toog wax ci économie bi rek. Mm-hmm. benn moo ci économie bi parce que dama gis ci projet de société bi ay proposition yu bëri yoo xam ne d'un côté xaymawuñu ñaata lay am impact. Mm-hmm. Euh, ñaata ñaata lay jar. ma jox ci benn benn firnde rek euh, da nga ne euh, pour sécurité bi da ngay yootu standard internationaux yi nga xam ne mooy benn gendarme pour cinq cent personnes benn policier pour mille personnes boo jëlee base. population 15 millions day nekk 15 mille policiers nekk 30 mille gendarmes hmm. bëgguma dugg ci yenn chiffres yi nga xam ne mën na confidentiel waaye loolu yokkute bu rëy la xaalis bu bëri lay laaj laajte am na yeneen mesure yu mel noonu ma bëggoon xam ndax xayma nga déjà yow sa projet de société bi ñaata lay am euh, ñaata lay laaj ci koom-koom te koom-koom boobu ci ban anam nga koy amee gannaaw li nga wax ni léegi léegi pétrole bi euh, am na yeneen mécanisme ndax da ngay yokk impôts yi ndax da ngay wàññi dépenses yi kese wa illa da ngay yokk déficit budgétaire bi ba pare outil par endettement wala par financement extérieur. bor moom endettement li nga tudd bor buy dugg Sénégal dana doon bor boo xam dana am njariñ dana mën jëmale kanam askan wi te dana seet audit de la lan la bor man indi njariñ Sénégal foofu lay mujjee ak bor bi nan lan ko jariñoo ak bor bi tey fan la toll ci Sénégal loolu lu may gëstu la dama bëgg nga xam ni man projet de société laa bind projet boobu day évoluer dem programme man loolu toll fii rek di jël ay chiffres di ko annoncé ñi ko fi annoncé yëpp danu am jafe-jafe ba nu demee mais man xam naa fan lay jële xaalis bi xaalis bi wax naa la ni la déjà am na institution yoo xam ni xaalis yu bëri koppar yu bari ñoo fa daan dem institution yooyu danaa fexe ba institution yooyu dootuñu am ndax amalu lu njëriñ askan wi nañ jël xaalis def ko feneen danaa seet aussi train de vie de l'État xam nga bul fàtte ni gouvernance sobre le président Macky Sall waxoon ñëpp xam ni sobre et vertueuse doonu si dara tey lépp yokku doxalin wi dafa gën yokk man nag danaa wàññi bu baax lépp loo xam ni mën nañ ko jëlee si gouvernement bi si doxalinam si institution yi seen doxalin delloo ko askan wi dana doon lu man nekk si biir budget bi damay am ay priorité priorité lu ma la wax li nekk rek sécurité dafa doon priorité si réew te nag ñu ngi nekk ñu ngi jot ñun ay revenu yoo xam ni war nañ si liggéey si li jëm priorité lenn li nga xalaat si ndaw ñi ëllëg parce que day dem ba suñuy réserve jeex te sénégalais yooyu ñooy ñëw ëllëg warul leen fàtte mais ñii nag dañ leen teg coono boo xam danoo leb bor boo xam ni ñoom duñ ko fay maa ngi wax rek tey si sama intervention à la télévision presque dafa mal ne suñuy ressources yooyu recettes yooyu noo jëlee si pétrole ak gaz bi dafa mal ne fi nu toll ni noo lebe dañ ko hypothéquer te dara xewagul kon yooyu yëpp dañ koy soppi mhm. wàllu économie bi duñ see jëfa nekk ay expert ay expert ñoo koy liggéey gëstu ko waaye nag fi ñu toll ñun xam na ni nan lañ see jubloo mais nag nan lañ koy defee si condition yan koy defee ak fan lañ koy jëlee fan kër value jëlee xam nañ ko nan lañ koy defee ak condition loolu mooy des loolu tax projet de société di évoluer di doon programme boo xam ni day doon un programme chiffré mhm. waaye nag réew da ngay taxawal ku yor réew te mënuloo tànn ay priorité ni lii mooy prioritaire lu lii moo prioritaire lu ma jalar nekk danaa ko def pour réew mi am ka jëmale ko kanam loolu soo ko deful kon booba say leefu président say ca cër des na mhm. looloo tax ma tëral lii si sama projet de société. voilà kon kon kon man bu ma la déggee ni ngay waxee nii. loolu mooy wàllu contrat pétrolier yi ak affaire gaz bi yow boo ñëwee da ngay jalgati lépp. waaw du ma tëb rek ni damay jalgati lépp xam nga soo ko defee gars yi dafa ne da nationaliser te man libéral sociale la libéral la donc ku doon libéral da ngay favoriser la concurrence waaye gis naa ni contrat yi am na yu bëri yoo xam ni. war nañ ko mën waxtaanaat loolu moom daan ko nangu contrat war nañ ko mën réviser damay toog ak ñoom si jàmm ñu réviser ko lépp lu mën yokk njëriñu Sénégal ñu fexe ba mu yokk loolu mooy li man nekk te ku ko deful day mujj lu bari daf lay rëcc nee naa li gën a metti mooy xéewal yi nekk si dëkk bi ñeneen ñëw jëriñoo ko sunu kaw te ñun duñ si jëlee dara nan ko ànd jëriñoo. looloo tax mu tuddee partenariat. Mm-hmm. gagnant gagnant looloo tax bi premier ministre ma termine tuuti rek. li premier ministre waxoon loolu tax ma ŋàññi ko bi mu ñëwee assemblée nationale dé de politique générale di wax un sénégalais de tous et pour tous un sénégal de tous et pour tous ma ni ko déedéet moo tax gisuñu tous man li ma bëgg <laughs> mm-hmm. mooy sénégal boo xam ni d'abord pour les sénégalais ensuite pour les autres mënuñu ñàkk tàllal suñu loxo bitim réew liggéey ak ñoom waaye lu noo def li nekk nanu fexe Sénégal am si as loo xam ni danoo toog si réew mi créer fi richesse yokk fi emploi yi yokk fi entreprise yi loolu mooy jëmale kanam ah, réew. très bien PDF dernière question malheureusement <laughs> Pape Samba ngi pression. waaw donc ci wàllu ndaw ñi laay rester toujours man bon sama question c'est vrai que li ma bëggoon nga aborder ko dëgg aborder woo ko noonu euh, ndaxte wàllu ndaw ñi ak xëy. ndax bu ñu jëlee suñu population tey jii lu toll ci 70 pour cent ay ay ndaw lañ amuñu fanweeri at ak juróom tey jii ñu ci bari ci ñi ñuy jiite dañuy jàpp ne rek emploi rek la ñu soxla naam c'est un problème te loolu laa lay interpeller ndax am nga une idée du chomage ndax jàpp nan nga yan yoon nga jàpp ne noonu la ñuy def ba ñu régler ko ak ndaw ñi nga xamante ni am nañ liggéey ba noppi te yittewoo tamit yeneen i mbir nga ngir nga accompagner leen li ma doon wax léegi ci exercer citoyenneté nekk surtout un bon citoyen yeneen ambition immatérielle boobu nan nga koy matale waaw xam nga problème bi ñaar la bu jëkk bi mooy ndaw ñi ñi jàng nañu seen njàng mayu leen liggéey loolu dangay ngay am courage wax leen ni nañu ci boole formation professionnelle ku amul métier doo mën liggéey fexeel ba nu am métier jàng nañu ba nu ar boole nañ seeg métier loolu dafay tax liggéey ba yomb te danoo xam bu baax lanoo liggéey su suñu jugee foofu mooy ñi nga xam ni seen jàng soriwul bëgg naa même waxtaan ak ba si biir daara yi dama bëgg waxtaan ak sëriñu daara yi ak kilifa diine yi ñu may ma ñuy jàngale métier si biir daara yi ngay jàng alxuraan jàng xam-xam boole ak jàng métier jàng métier boobu day tax du ñëpp ku jug ni damay doon fonctionnaire wala damay liggéey ci société mën nañu liggéey ci société mën nañu monteel seen projet bopp bu ndaw projet yu ndaw yoo xam ni dana tax gis naa barki démb ni mille cinq cent sénégalais génn nañu si am xam-xamu liggéey si bâtiment mais ñooñu da ngay fexe ba ñenn ñi daanu am seen entreprise yu ndaw état bi moo leen di encadrer il faut ñu fexe les petites et moyennes entreprises entreprises yu ndaw yu bëri Sénégal su bëree Sénégal rek tey ndaw mu nekk bu jàng liggéey war nga man yor sa entreprise bu ndaw di ko liggéey état bi nag daf lay accompagner du la bàyyi noonu daf lay accompagner pour nga man accéder au financement kooku il faut mu wut fonds yoo xam ne moo koy def te fonds yooyu si si sunu recette pétrolière et gazière war nañ si jël lu bëri ju jëmale ko si ndaw ñi gannaaw bi mu la accompagner si wàllu fina accompagner la formation accompagner la si financement ba pare nag nanu fexe imposer société yi lu nu soxla si wàll googu nga xam ne ndaw ñi ñu ngi koy jëfe ñu mën wëlbati ko jublu si ndaw ñooñu jox leen liggéey boobu dana jax sax état bi wut ay mesures d'encouragement ay mesures fiscales yoo xam ni dafay jëmale kanam am na ku ma doon laaj ba xam damay euh, yokk impôt déedéet man damay xalaat sax ay mesures yu bari yoo xam dañ ko war jël pour wàññi pour lu bëri nga défiscaliser ko ndax mu yomb Sénégalais yi bu leen fàtte ni man maa doon ku xalaatoon mbirum habitat gisoon naa ko ci question yi habitat social il faut nga défiscaliser ko lépp loo xam ne dafa jëm si habitat sociale ñaar nga am benn bi soit état bi ni man may viabiliser viabilisation 30 pour cent la de la l'habitat 30 pour cent du prix de la maison la soo viabiliser immigré yi danaa jël engagement wu ak société bu mag bi ma leen di créer société de transfert boobu lépp lu jëm ci viabilisation dana ko def ba sooy ñëw di jënd kër daa am bénéfice su 70 pour cent buy wàññeeku ci yow yooyu yëpp ay xam-xam la ñu am kenn mënu ko tuur si diir bu gàtt bi. moo tax sànq ñu doon wax nan ko def. wax toog genn waal ndax ma tojol leen ka waaye li nga wax yëpp ci ci kanam bëgg ci français bi rek waaw déjà déjà dem nañu ñaari waxtu kay waaw kon nan ko def ko def ñetti waxtu ah. nan ko def ñett baax waaye ñett baax ñett jërëjëf maître parce que yéen ngeen di laaj dafa am solo te tontu wa aussi il faut mu am solo ba réew mi xam ni xam nañ fan lañ jëm xam nañ fan lañu bëgg jëmee réew ah, mi ko eggale ci français bi ci kanam tuuti léegi jeexal nañu waxtaan wi président Madické Niang ñu bàyyi la nga say kàddu yu mujj ngir askanu Sénégal mooy wax leen ni leen man Sénégal laa bëgg Sénégal laa bëgg taxawu Sénégal laa bëgg jariñ fa séenéwu ma jariñoo senegaal moo tax ma tàllal sama loxo naqaru ndaw ñi jafe-jafe ndaw jigéen ñi jafe-jafe Sénégal yëpp lii moo tax ma laxasu dugg ci langue politik bi ni nag am naa xam-xam boo xam ni mën naa ko jëmale ci jariñ sama réew si jëmale sama réew kanam loolu xam-xam boobu naa ko jëfe looloo tax ma tàllal sama candidature maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf mu nekkoon mbokk yi ak ñun candidat bu coalition Madické 2019 euh, président Madické ña ngi seen émission la grande interview ak RFM télévision Futur Média IGFM observateur ba beneen ak candidat beneen